fii ci kër Serigne Cheikh Oumy Mbacke mu Cheikh Amadou Fadal su ngeen gisee jataay bi ak xarkanam yi ngeen gis dangeen xam ne ndigal li daa jóge ci Serigne Sidi Mbacke xalifa Cheikh Abdoul Ahad moo ñëwati ngir fàttaliku gi ñuy fàttaliku ak a ñaanal Cheikh Abdoul Ahad ñaar fukki fan ñett ci weeru sawaal e, jub si na jege si na e, saa su jubee nag commission culturelle bi nga xam ne sëriñ bi moo ko tànn ci ndigalam ci jiital Cheikh Abdoul Ahad Jaxate ak euh, bokk yu bëree bëri yoo xam ne ñu ngi ci biir commission bi di ay woroomi xam-xam ak ay jàngalekat ak gëstukat ngir sëriñ bi daf ñoo sant ci ne Cheikh Abdoul Ahad géej la kon saa bisam jubee jamono laaj na ñuy càmbar ay aw doxiinam ak jikkoom ak jëf yu rafet yi nga xam ne daana ko def ngir ndaw ñi man ci jariñu loolu nag mooy tax ñuy tànn kilifa yi nga xam ne dund nañ ak moom te man ñu cee indil jàngatal ñu yu bari ci ak dundam ak ay jikko ak ay yuñ mën a royee ci moom yoo xam ne ndaw yi danañ ci jariñ kon teew na fi commission culturelle bi sëñ Abdoul Ahad Bousso Muxtaar sëñ Abdoul Ahad Maam Asta Cheikh Abdoul Ahad Ka sëriñ Abdoul Ahad Bousso mu sëñ Abdoul Moutalib ñu fekk fi tamit sëriñ Abdoul Ahad Mbacke moom sëriñ Cheikh Oumy mii ñu nekk këram. xam naa moom la ñuy teg nuyoo bi ci loxoom moom mu jàllale ko su ko defee sëriñ bi e, ni ma ko waxee léegi ñëw nañ fi ci ndugalul sëriñ bi sëriñ Sidi Mbacke Abdoul Ahad ngir taataan ci yow ay kàddu yoo xam ne da nga ñu ko mën a baaxee ci Cheikh Abdoul Ahad ci digganteem ak Cheikh Amadou Fadal ak sa diggante ak moom ak yi nga xam ne dund nga ko ci ay mbir yu am njariñ yoo xam ne jamono laaj na ñu fàttaliku ko te dund ko bokk na ci li tax ñu. ñëw fii ci kër Serigne Cheikh Oumy Mbacké mu Cheikh Abdoul Fadal ngir eh, jamono na ak Cheikh Abdoul Ahad waaye nag dund ak moom ginnaaw Cheikh Abdoul Fadal mu nekk ci biir Cheikh Abdoul Ahad jëflante ak moom sëriñ biir jëflante ak moom mu dund lu bari loo xam ne jànge na ko ci moom loolu nag kon jaadu na eh, lu mel noonu ñu balluloo ko ci moom ngir askan wi man cee jariñu kon sëriñ bi dañ lay jox kàddu gi bismillaahi rahmaani rahim euh, alhamdulilahi rabbil alamin di sant yàlla tey julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam tey sant Serigne Touba tey nuuru Serigne Mountakha mi nga xam ne moo toog jotaayu Cheikhul Khadim ak mboolem fu Serigne Touba def dara rek tey nuyu sunu kilifa yi nga xam ne ñoo yor sunu baatu kër muy Cheikh Mamadou Bachir ak Serigne Abdou Fatah mi yor kaddu gi mu tegal ñu ci loxo Serigne Abo mii sunu Serigne. Euh, waaw sëñ Abdou Ahad li nga wax déggees na ko mënees na koo xamit nag waaye da nga ne damaa ñëw kër sëriñ Cheikhoum mi waaye da nga naan ñëw naa kër sëñ Abdou Ahad fii moo moo ko jox bam koy joxee nag dafa woo sëñ Mewndu woo Jib Ndiaye ne leen damaa bëgg ngeen dem ci hôpital ba la féete penku doon tooloon tool soxna soxna Awa Bousso ya nit boo nekkee moom te bëggoo mu jëppi la lu ne dañ nga cee te moom moom may de muy sëriñ Fallu te lañ ma nettali ñoom bàyyeewuma dara waaye man bu ma ko bàyyee dara loolu la waxoon daal su ngeen demee nangeen ngeen jël njabootug sëñ Fallu gi boole leen dennale leen bu ngeen noppee na ngi teg waa kër sëñ Afe ñang yi bu ngeen noppee teg ci waa kër sëñ Afe Buso yi mooy fii nu dëkke kon fii bul nekk kër sëriñ Cheikh bi da ngay wax kër sëñ Abdou Lahad man nag 68 la fi sëñ bi jógee 69 laa ñëw Touba Belel waaye ku ko miin da nga gore danga bëgg sëriñ bi danga doon ab taalibe loolu moom lu ma xam ci moom la la ca des nag lu ngeen ma ca laaj tama xam ko danaa ko wax waaye ku bëgg lu baax la te as gor la ab jullit la am na ci loo xam ne nag kenn mënu ko yëg Sëñ Tuubaa te ko jaarale ci moom moom ñële moom ay mag lañu waaye moom nag fi mu toll ku fa toll te li nga yor nga nanga koo bokk ak ñi nga bokkal da cee bëriwut yokk na nag wàññiwut moom Cheikh Lahat ku ko xamoon ca Touba bu xëyee toog ci penti bi ànd ak sa sa ñam sëtu sëñ Abdou Lakaram ak sëñ sa sëñ sëñ sëñ Modou Mamoun Niang Abdoulaye Karam day xëy si bàcc gee koy jëli ñu ne fa soixante huit soixante neuf soixante dix la ñëpp ñibbi si bàyyi faale yi ñoo defar kër ga fa la ma fekk mu ne Cheikh Jaxate kay dëkk indi sëñ meew du jox ko mu sës ci Cheikh Jaxate am mbedd dox seen diggante mu ne sëñ Moussa ma ñëwal di dëkk Cerno Fall ñëwal dëkk sëñ Fallu Njaay xebar ñëwal dëkk daaree joo njóobeen yi ñëw dëkk ak ñoom kër Mor Ñas ba ci wàcc yéen yu ndaw ñoo ñee mu des fa ab diggante boo xam ne kër sëñ Asa Dogo moo ci sos nag ñu ne fa ak moom waaye ku gore la ku bëgg lu baax la ñi gone mi mel il mu ñu mel ni waaye nag kenn mënu ko dab sëñ Fallu nag amut sago ci moom sëñ bi tamit amut sago ci moom man lu ñuy defal nit moom ma ko defal moom ndax ba may fay ñëw booba xale laa jóge ci xalifa ak sëñ lu ñëw ci xalifa ak sëñ Blaat ak ñam toll xalifa gi yombut de xalifa pire noonu lay mel ndax ñëpp ca bokkoon. xalaa xamoo ne bi muy nekkee Touba Belel di sancal nit ñi dafa toog ba mu yàgg moo woo suñ meew du ko dama bëgg nga yoral ma dëkk bi boobu ma ngi koy jàngal muy Touba Belel mu yor ko ba yàgg mu boole ci coopérative ba. ba yàgg mu ne ko dama bëgg nga ñëw dem Touba ba mu ko joxee dëkk bi tam bàyyiwu koon moom dong dana ko dama bëgg nga dem ci doomi Sëriñ Touba yi kenn ku ne nga nag ma fa tànnal ñaar wax ko ña nga xam ne ñooy doomi Sëriñ Touba yi kenn ku ne tànnal ko ñaar indi ko mu boole ne si mbiru ne leen dee leen déglu lu la wax na nga di ko ma musta beru de bëgg yëfi boppam waaye boole woon na ci ñëpp laa wax seere ko nag day jafe ci man waaye sama xarita ñoom sëñ Laat da cay dolli ko nag mooy lii nag mu bokk ak ñu nit ñi ak bokk ak ñu njabootu Sëriñ Tuubaa gi kenn ku ne jox na la la moom la ca des nag mooy nu tàbbi ci biir bis bi te defal ko lam nu doon defal rek la ma sa wax ne sant ku ma deful dara xarab ko la loolu mooy dëgg ku ko ku ku mu defalul dara amul ndax bari na ci ñun ñii génération bii toll am na noonu jàppee Sëriñ Tuubaa bu toon moom dañ koo jàppee wax baaxu jàmbur la ci wax baaxu kenn dara danoo bokk luñ bokk sëñ bi boole ñu ci boppam waaye du tee nag moom jëf na fi loo xam ne ba dina tukkeen du ko fàtte moom rawatina xool dari kaan bi rek bi xoolal yokk bi jumaa ji leneen loo fi gis lu ne mag ñee ko defoon waaye nag la yokk moom moo ko fi njëkk a te nag yokkut dong nag yemi ci jumaa ji dong ci nit ñi la njëkk a yokkee daanaa dégg nag ca mag ñi ne fii sëñ bi bi mu leen wooyee neen dama bëggoon ngeen dikki ne kapp seen kii de la dal kii laay bañ mu dal kii de moom sëñ Fallu ko wax ndax moom kenn waru ko ci mbokk man dama bëgg ñu ne ko kapp rek kuy kuy génn yam ci ñun kuy dukk yem ci ñun daal di ñëw ne leen da di ñëw nag mu boole koog sëñ Saliou fi ñu dëkk boole koog sëñ sëñ sëñ Mourtala Nefe sëñ Abdou Khadir fii am na ko ko moomoon ci ñoom ñaar ñu ñu waaye dañuy nattable comme doon la xamul ndax fekke wu mu doo ko jox sëñ Baara jox sëñ Tolofa Ja jox sëñ Abdou Borom dër bi doo ko dëkk fii sëñ Abdou Lahad ne tey falakaar yi ak yafa daa xew waaye ku moom dara boo koy jël kenn mënut a ba doo ko jël moom nag bi mu dëkkee fii mu dëkk mook sëñ Saliou musta lekk bàyyi sëñ Fallu bu ma see togg añ dana tibb yóbbu bu ma see togg reer dana tibb yóbbu ndax nee na ko kuy kuy dund ci yëfi jaamur loo am da nga koy bokk ak moom toppee moom xam nga cër la ci nit du jàgg ne pour comme ku jóg rek man ko ñoom nag xam nga sëñ Tuubaa dafa def ci loom ñu nekkul ci nit ñi moo tax ñu man lañ man waaye nag du tee ku bëgg dara il faut nga wut moom nag mat na sunu kilifa ndax dëkk bii nu ne de lu suñ tubaa am yu am baat dugal na ca baatam te xam nañ ni dugal na ca baatam muy dëkk bii ak njaboot gii ak dong yii ak ak ak yoon yi ak mbedd yeeg dëkk bi rawatina marché Ocass bi ba ko fi tojee loolu dégg na ko waaye tey loo ci dégg lam ca doon wut am na ca lu ko kawe njortam waaye fi ne nii yokkuwaat na leneen dikkat na lu kenn xamul lu mu waaye du tee nag ñu ne ko allo eh, jaajëf rek Sëñ Abdou Lahad daal moom ku ne amee na ko njukkal yéen nag tuddee rek lañ leen ko def waaye li defal ñi tudd ñiñ ko tuddee wut benn ci man mii yéen defalu leen ko moom yal na ko yàlla fay te njabootam gi mu fi bàyyi tam yal na leen yàlla sutural te boole leen ndax nit it nag boo sañoon boo ko bëggee ci sa biir xol doo dégg kenn ku ne jam ci moom dara kon nag ñu ngi leen di sant bu baax a baax li ma xam ci moom nag bari na ci du ko mën a wax waaye ku baax la de ci Abdou Lahad kenn ku ne la moom dala koo jox te yéene la ko nag rawatina nga ndaw yii jëflante wut ci nam toll ndax bu ko bu ko bu ci jëflante woon dana metti waaye dafa jëflante ci am xel nag ci Abdou Lahad ku amoon xel la ku amoon fulla la ku amoon fayda la ku amuk dog la woon dëkk bii moom ni mu ko defaree ginnaaw suñ fëllu keneen ku dikk rek dangay ngay toppaat ci loola rek ñee nag ay mag lañu moom Cheikh moom Moussa ak sëñ Fall moom dooñu ay waaye ñoom ñi nga xam ne ñoo tolloo ñoom li ci seen def nit du ko ci defaat moom waaye nag njab suñ ñun ñii nga xam ne mooy génération bi toll nin mel ci Serigne Touba ak yéen ñi nga xam ne yéen yéen muxaddamatul xidma nii ngeen tënkoo ci Serigne bi moom rek lañ koy royee sëñ bi da xool ni mu daa def sëñ bi doon sëñ Touba ak fi mu toll xëy toog ci suuf ba jant bi so te du jóg di ci tubaab bi la ci digg penc bi ci neex maa nga nit ñi dikk ka dem ak dikk mu toog fi toog sóonu ci suuf te mooy sëñ Tuubaa kooka kooka yëgali na lim yor lu mu doon waaye kam yore xam nag mooy kan moo tax li mat a def daal mooy roy leen jéem ko kenn du ko man waaye fulla mooy jaay jaxaar jom mooy fexe fexe ba wutal la lu baax fexe ba tamit nag ba jikko ju baax nga am ko moom ku ko miin da ko roy ci moom nit ku baax la la cay dolli ko nag mooy dëkk bii moom am na borom te lam ca rek jërul xeex jërul xuloo ka mat la mata ka mata defar la mu war a defar moom dana ko defar. dafa am ku ñëwoon sëñ Fallu nag ne ko si nga war sa ah, koo bokkul ëllëg fooy dekkee boo ne ko sama xarit nga yaa ngi may tooñ looloo dal si ñëpp laxat àndut ak kenn ku li nga li nga àndeeg moom rek la àndeeg yow ñooñu itam la àndoon ak ñoom rek da nga ma daa dégg bu daa wax ba noppi day jékki-jékki yéen da ngeen ma jégal kët ma wax sama mbokk tali bi ngeen daa dégg loolee nag la ko waral mooy day wane leneen ku dikk rek loo ànd ak na ko ànd ak yow am fulla la woon waaw doon wax ci ko wax ci suuf rek may wax mën na ko wax adduna bépp dégg ko moo taxoon ñëpp wóolu ko ma wóolu leen rek waaye nag musta waxit nit ci biirum néeg lu mu mën da ci penc ma sëñ Abdou Lahad wax ca kaw la koy wax ñoom itam nag fañ ko tegoon da ni musta wax lu lu lu nekkut ci moom nit ki waxtu boo ko dee wax lu nekkut ci yow rek mën na laa yab waaye boo ko dee wax li ne ci yow du la yab mukk loolu moo taxoon kenn yëbu ko la nam daa ànde nag ñuy bokk di def lépp da ci daa jël engagement am responsabilité loolu nag dafa jeex ci àdduna moom jël ko nim ko ma ne kenn du ko def ci àdduna moom dafa am ku dikk ne ko man de daa am lu ñu waxante woon mu ne ko kañ la woon mu ne ko bis sànga mu ne ko wax nga dëgg de mu ne ko dang ne ma woon bu sa bët xonqee naa ñëw ci yow mu ne ko mu ne ko sama bët xonq la nangam dafa xew mu ne ko noo ko bëggee mu ne ko dama bëgg mu saafaraw mu ne ko léegi toog woo bàcc mu ne ko dama jëlee li ma diw wool diw ne ko na ànd ak diw ñëw fii bàcc géey dem ànd ak diw dikk mu ne ko kii lu def ñu ne nangam ak nangam la def mu jël téléphone woo Abdou Abdou Diouf ne kooku kat foofu mu nekkoon maa fay ne tey mi ngi fii ci man responsabilité bi kenn jëlatu ko moom nag lim doon jël. benn nit du ko jël ci àdduna benn nit du ko wax ci àdduna ndax dafa ñeme woon te lim nekkoon la sëñ Tuubaa waxoon ci moom ne am na ci moom yaakaar moo taxit loolee nag la nit ñi delloowaat ko ko ndax waxtu woo defee la sëñ Tuubaa loo mën mu defal la jom xam nga nit bu bu yeewoo lu mu aw yeew yeewatee ko may moom dafa teeloon a jàng sëñ Tuubaa topp mag ñi nangoo na li yoroon li ñu yoroon lépp jox ko sëñ Tuubaa moom la ko waral mooy dafa xiir xanaa xam ne sëñ ku ko gën a xiir ci àdduna bu la dee jox dangay ngay yaakaar yow dong la daa la war a jox ci àdduna moo tax jëflanteeg moom day jafe mag ñi nag dalee na xiiroon ci boppam ñoom itam ñu xiir ko seen bopp moo taxoon lu ñu am jox nañ ko ko te yàlla tax mag ñi nag kenn mosu ko ci jëppi moom ndax dafa na nangoon a am kilifa nangoon a toppe nangoon a jël yaakaar yaakaaram teg ko fi mu ko wala teg ba tax na bi yëf yi egsee ci loxo mu mën ko mu mën koo téye ni mu ko téye woon daal dana jafe ci àdduna ku ko mën a téye ti moom wax dëgg nag du xoti nañ ma jégal nag kenn ku ne la nga dund ak moom noonu nag ku mel ne man mënu koo fay ñun ñii fii nu dëkk daal moo nu ko jox du kër ñu Sëriñ Fallu njaboot gee fi ne nag waaye dafa jël bakkanam dana waxoon sëñ moom du ne ko na ngeen ba gone bu kenn jaay te na ngeen ci teg seeni bakkan jim njaay ma ko nettali kon tey su ngeen demee ba bis bi ñëw bis bi kenn moomu ko man nag la ma ko warlool ba ma sañ sampee kër ak léegi maa nga ca ajjuma jot dinaa togg añ yóbbu ko ci barabam bi xam nga mm, boo gisee ku mel ne Serigne Modou Mamoun Niang këram niñ ko miine miine wuñ ko suñuy kër mooy booba dajale téere xew nun ngoon yëpp fa la ñu ne buñ xëyee dem dajale ba ngoon jot yi sëñ laat moom si yi sëñ laat moom sëñ sooy bokk bind yi nangam yi nangam yi jóge nangam sëñ laat di mool ci biir kër ga loolee fa la ñu fekkoon te lenn loo xam ne ñun suñu kamil yëpp mi ngi ci mi ngi ci mi ngi ci bibliothèque bi te yooyee dong nag mooy yëfi mooy yëfi murit loolee nag moo waral Sëñ Abdou Lahad moom mm, lim séq ak sëriñ bi bu ko ko sëriñ bi fayee léppam xolam dana sedd ndax lu mat a defal sëriñ bi rek defal na ko ci la man ak la manut ñun ñii fi mu ne lii tax ngeen xiir ñu comme yéen ñi ngeen doon ay di diori kuri saka nangam nangam ci Sëñ Abdou rek la ndax booba Tuubaa am na nu meloon waaye bi mu dikkee da ko defaraat boole ñu ci ñuy jàng ci jumaa ji wëlbatiku ne ci dari kamil di dajale ay téere ak ne lañ daa def te loolee sëñ bi laa tax ñu ko am na ci loo xam daal sëñ bi koy yëg waaye des ko mën a wax man ne am naa benn bis boo xam ne nii fanweeri seet fekk na ko laat gay xar ñoom laat gay ngoox ñoom gone yooyu nekkoon ci daara ja fa la ma fekkoon noonu la daa def la cay dolli ko nag mooy ñii nga xam ne ñoom la bokkal Sëriñ Tuubaa li ci bari waaye fexoon na bay jaxasoo ñoom ndax kenn ku ne doo la jàppee jikkoom sekk fa ne mu ànd ak yow ci sekk fa nga ne mu yow ci sa jikko fexe ba moom la ci sa jikko nag te doo sañ a demati fenn waaye xamoon ñi mu doon àndal ku xamoon ñi muy àndal xoolal bi la ña fa dëkkoon rek da ngay tàmbalee ci Jaxate mbokkam def noonu rek am na ñu neexut jaxasool de waaye moom dalay fekk fa nga ne mu ànd ak yow ci sa jikko ba lim bëgg ci yow mu def ko ci sa jikko ba noppi nag dootoo doo ko dootoo ko mën a baax ndax da koy miin bu boobaa ndax sa jikko loola fekk ànd ci ak yow ba day nit ku baax defar nit moom xanaa defar ci ngay wax waaye waaye boo xoolee ñi àndal ñëpp rek kenn ku ne am na lu def ci yow doo ko fàtte mu fullaam rek ak faydaam ndax nit koo xam ne nii boo dee xool ci àdduna ëppale woo ko ci nes-nes yi yi mën a gis ba nga mën a tiitaru bu dee ci wàllu fulla tamit nag da nga xam ne kii ëppoo ko fulla te ñemewoo koo jege te moo gën a neex na moo gën a lewet nag xarum yar ci ko ko miin waaye munoo koo mu ko yàpp ko te bu dee xoy-xoy yi yi te moo la ko ëppale nag ñetti mbubu lay tegale fanweeri mètre takk weer yoo xam ne nii seexu bi mënu ko am ak Abdoulaye Doussa mi te bu fi jógee jëm Dakar ñeenti oto lay àndal dem Karim Karim Fall kenn mësu koo yab de waaye fulla la ànde woon ak nit ñi ak fayda ba kenn mënu ko yeb waaye comme jaxasool da ko bëgg nag moom ndax xër na te mën naa joxe te wax ci kaw wax ci suuf seen la dal loolu mooy mooy jikkoom joo xam ne bu ko ñëpp royoon lépp mën naa baax waaye jamono nag fii mu toll wax ci kaw wax ci suuf a bari. ci seen jamono yooyu maanaa euh, ni mu la woon ndaw ñi ci jàng xam nga fi mu ne nii dafa mel ne alxuraan gën naa fees ci ndaw ñi. ci ji jël ay ay ay ay ay di jël ay coupe fu nekk ba ci ba ci bitim réew euh, yow ci seen jamono si Abdou Lahad ku mas a kaay mil yët ko nan la daa jëflante ak ak def lu man ak lu mënul rek man de ba ma ko ko joxee dana ma bi ma lay wax ngeen ànd dem Abdou Samad la ma booleel Mourtala ñu dem Bambuk mu ne damaa bëgg li fépp jaar ngeen jaar fa waaye nag bu ngeen ko defee lu ngeen bëgg dinaa ci de man la def na ko lu am de moom defal na ma ci la man Ibrahima la ma daa booleel. lu xew moo indi teraanga ci sama kër la ca des nag moom mooy jàngal moom jàngale jàngale moom kenn mënu ko cee fekk ak liggéey fanweeri jëwlin ci dongay laxasaay moom laa ko njëkk gisee ci àdduna moom mu di leen liggéeyloo te lu mu ca jógee lu ne lu mu ca jëlee lu ne jox ko Sëñ Tuubaa njàng moom daal yi kaamil yi kay li ko indi indi la lu amul kenn ku sant Mbàkke ko fi sëb kaamil nekkul këy kaamilu sët kaamilu doom bu fa nekkul amul te lépp ci loxoom nga koy teg te boo koy teg ci loxoom mu jox la teraanga joo xam ne bala nga faa jógee da nga toog weer wala ñaari weer loo xam ne doo doo bëgg dara loolee nag moo taxoon gone yi daa xarutoo ba ma ko lool xoraan bokkut jamono jii nag nga xam ne lii nag moom dafa xew dafa am lu ñu ubbi loo xam ne kenn xamul lu koy tëjagum xam nga moom dafa tàmbalee ci bàqara ba naasi boobu Sëñ Tuubaa nag moroomam wala nga di ko jéem a roy ci loolu ne ko yaay doomi Sëriñ waaye moom waxtaan nu wax naag noonu ku bëgg a dund ci àdduna te doo yàq dara wala nga nga wala nga wala nga nga wala wala wala la nga doon mu nga xam ko da ngay déglu ay waxtaanam man de man de la tàmbalee bam mu la mu njëkk a waxtaan ba li mujj a waxtaan am naa ko danaay toog nag di ci dugg di ko di ko déglu ngir bëgg a xam kan sama bopp waaye xam naa ne taalibe bi sëñ Tuubaa moom ku ko doon moom mat yor nga matériel moom doon taalibe bi sëñ Tuubaa ku ko doon am nga matériel boo xam ne kenn du ko yàq te jàngal na nu ko nag nit nag mënoo ne lam wax lépp nangam ak nangam la ndax fa waxe doo ko fekke la may wax tam dégg de nga ca man la nga cee mën a xamit nga ko mën a xam nga mën a xam waaye moom musta wax lu doonut li sëriñ bi digle musta wax lu doonut li sëriñ bi sopp musta wax lu sëriñ bi di nga xam ne bu ñëwaatoon du soppi aw tooginam moom. am nag loo xam ne daanaka ginnaaw dongalaa ñu yilif ma du du ma sañ a joxe ndigal di waaye nag man ñi ma tollool sama njaboot ñu góorgóor jaamu yàlla te liggéey rek buñ ko wut buñ ko am buñ ko defee jot doon ko am bay mën a dugg ci leneen te ku dugg ci leneen rek boo jaamoo yàlla na nga liggéey loo bëgg ci loo bëgg mën nga ko am loolu nag mooy li nga xam ne ci la ñu war a tënku waaye nag digaluma ko kenn ndax suñu maa joxe baat waaye ñi nga xam ne ñoom danañ may déglu buñ bu ma sañoon ñu jaamu Yàlla te liggéey daal rek buñ ko defee liñ bëgg lépp mën nañ ko am boo xam nga jikko dañ ne borom pax jikko si daal moom dana jafe roy ci dara waaye boo ko dee gis ak di ko dégg dana tax nga am jom te ko am jom ko am rek leneen lu ñuy mën a lijjanti si jikko tam duñ ko mën a gis ndax jom jaay tax moom loolu fi ay moromam def na def na ko rek waaye li ma ci gën a daal mooy yokku jumaa jii moom ndax sëriñ bi tamit nag amul tànk ginnaaw tànkal laam lañ wax waaw kon yokkal ku yokkul yaa koy waaye moom yokk na moom moom daal yàlla ko yàlla fay rek. ful la daal moom la doon la yore woon lépp mu demee daal demewu ne woon ba mu fi nekk kër sëriñ Tuubaa yi moom kër sëriñ Tuubaa lañu dongo yi dongo yi sëriñ Tuubaa lañu yëf yëf yi sëriñ Tuubaa boo yoree batu nag boo yoru sa yëf yi sëriñ Tuubaa waaye moom yoroon na ko moom li def nag mooy moom. li mu matoon def daal def na ko ci li xam li ci des nag da ci am loo xam ne suñu yoon nekku ci te duñ ko sañ waaye moom daal jaajëf jaajëfati du moom daal li li tubaab di wax du tricher loolu mooy dëgg nag moom foo lu ma a def daal def na ko ci ñoom ndax moom amut si son bi la moom mooy mbokkam ak suñ sali wooy mooy mbokkam déedéet moom suñ tubaab la jël xool suñ du xaajal lu ma soxla an si yebdu nag waaw te boobu mënoon na ni saliwu wala mënoon sony bu waaye loolu ndax da ko daal seeral si Abdou te booba yéen ñi xam ngeen ne fekke ngeen noonee nag la mel dafa set wecc yàlla noonu yàlla taas ci barkeem te yokk leeram man de maa maa maa ngi koy ñaanal fu ma toll ndax moom laa ko moom laa ko mënal nag ndax ab taalibe laa sëñ Tuubaa la gëm te euh, wax dëgg yàlla euh, ñoom boole nañ ma ci seen bopp waaye moom de ni may ñaanale Cheikh Mamadou Fadal la koy ñaanale dama koy tudd de turam njabootam gi mu fi bàyyi tamit nag yàlla boole dama ak ñoom amuñu xaar ma yàlla di ñaan daal seen barke bay yàlla na leen dal da cay dolli ko nag mooy nu nu ñi ma war a waxal rek nu góorgóorlu rek te xam ne li fi mat a def mag ñi def nañ ko ba noppi dara kenn mënu ko yàq xanaa kay nit koy yàqu rek yàqu waaye li fi ne kenn mënu ko yàq wax ji nag bari na lool waaye ku wax del wax loo xam tey wax looy def te wuti kilifa nag te toog te yem te noppi bu ñu ko defee lépp mën naa baax. sa sa digg ak sëñ Seydi tamit. Euh, gis nañ ci man man nañ ci seer ndax gis nañ ne liggéey yi yi ñuy defal sëriñ bi euh, ci Daaru Salaam bukki barga xam ne fa lay liggéeyee sëriñ Touba saa su ñëwee da ngay fay dem yor sa dalu bopp loolu it xam naa ne am na lu ko waral. Ah, ah, yow nag xam nga sëñ Siidu nag du sama morom man am saay sama morom moom ma ko yëgal ginnaaw sëñ Siidu du sama morom ndax sama kilifa te man duma jaxasoo ak sama kilifa te xanaa xamoo ne sëñ bi koo jaxasool rek ci jamono ji ku sëñ tubaak doomam. man ngaa gis ci moom loo xebet maa tax du ma jaxasoog sama kilifa waaye nag samay morom laa jaxasool am saa fa yóbbu te damaa xamoon waajuram wu jigéen xamoon ko moom ci boppam boobu mi ngi kër Cheikh Jaxate jàng rakk Cheikh Jaxate ko di ko jàngal boobu Abdoulaye mii di seen kilifa boobu maa nga fa moom itam di jàng ma ne fa di jàng ni ñoom rek waaye sama xaritam moom ma fa yóbbu ak it damaa defut lu gën loola bi ku ma ci woo foo ma fekk la fa waaye nag siitu du sama morom ma may jaxasoo moom am sa daal laa jaxasool di ñaan di ko ñaanal rek mu yàgg fi te wér te yàgg a taxawee bis bi yéen it nag eh, nit ki moom wàcc nañu bu dee sëriñ Cerno bu dee sëriñ Mataar la ko war def na ko jur nañu leen fi ñu leen war a juree di gor ñoom jigéen ñi tam gor lañu yéen ngeen judd nag doon gor gore nag yéen a koy wutal seen bopp nii rek la jàpp leen te bu leen bàyyi noonu nag ak ñi ma ko sañ a waxal muy samay moroom kenn duñu topp ci sun ci sunuy benk ñenke da ngeen ñuy jàpp ngir yàlla rek ndax noo ko bokk bu yàqoon mu yàqu bu baaxee bu baax rek wasalaamaaleykum wa rahmatullah aleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuhu jërëjëf sëriñ Cheikh Oumy Mbacke mu Cheikh Abdoul Fadal ñu ngi lay sant bu baax a baax ci kàddu yi njëriñ yi bëri na lool liñ ci mën a jëriñoo it bëri na lool jàpp naa ne bokk yi ñuy seetaan ak yi ñuy déglu Euh, danañ ci jariñu bu baax a baax kon ñu ngi lay sant bu baax a baax a baax te di la ñaanal gudd fan ak wér di la sant it ci turu kilifa yi yi nga xam ne ñoo ñuy liggéeyloo di sant it bokk yi nga xam ne teewoon nañ fi léegi kon jataay bi moom lañ amoon fii ci kër Serigne Cheikh Oumy Mbacke mu Cheikh Abdoul Fadal ngir waajtaayu ñaar fukki fan ak ñett ci magalu Cheikh Abdoul Ahad ci taxawaayu commission culturelle bi nga xam ne ñoom la Serigne si di dénk lu ci wàllu culture communication ci magalu Cheikh Abdoul Ahad ñu teewoon ci jotaay bi e, di sëriñ Abdoul Ahad Ka mu sëriñ Modou Kabir Ka e, sëriñ Abdoul Ahad mu sëriñ Mokhtar Fati Kani sëriñ Abdoul Ahad maam Asta mu bàyyi sëriñ Boussové mu sëriñ Mbacke Kani sëriñ Abdoul Ahad mu sëriñ Abdoul Moutalib e, sëriñ Abdoul Ahad Mbacke moom sëriñ seex Oumy moom it day dugg ci suñ biir ak sëriñ Takku Mbacke mu sëriñ Cheikh Oumy sëriñ Cheikh Gaawaan mu sëriñ Cheikh Oumy ak sëriñ Nasi Ndiaye Maysa sëriñ Maysa Ndiaye ñëpp teew nañ fi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 gën noo gàtt ndoog tawféexi sëriñ bi